ci li nga xamante ne mooy deuxième point bi ñu war a waxtaanee concernant li nga xam ne mooy menace campagne bu apaisée bi nga xam ne njiitu réew mi mu ngi ci way politique yi tey ab laaj la ñu samp ndax élection bu apaisée dina mën a am vu que ni ñu ngi am ay arrestation xam ne ñu bëri ñu ngi jàpp ne ay arrestation arbitraire la kom ni ko Adama waxee injure yi mi ngi dox wante gi itam mu ngi dox ndax gis nañu je te donne un exemple ki nga xam ne mooy Barthélémy Diaz ak maire bu Kër Massar Bilal mi ngi mel ne ñoom ñaar euh, ñu ngi euh, mu ngi mu ngi war a bokk Bilal mi ngi tëkku ki nga xam ne mooy Barthélémy Diaz di ko xamal ne ko incha allah Touba euh, le 29 il sera à Tamba ba xam qu'est-ce qui va se passer te ñu xam ne day fekk campagne bi commencé est-ce que loolu mënul indi ay tension est-ce que loolu buñ ci demee dina mën a éviter euh, campagne bu bu bu bu ànd ak apaisement. ah xam nga président de la république moo demandé. Mhm. à ce que campagne apaisée. moom la buñ ko amul moom la. Mhm. déggoo ma de. bu baax. mane ne bu ñu amee campagne apaisée. moom taxawaayam la. Mhm. suñ ko amulee ci taxawaayam la président de la république n'est pas impliqué dans cette élection waaye moom mooy la clé de voûte de toutes les institutions gis nga am na yenn yoo xam ne buy xeeñ foofu nag la république war a taxawee fa la état war a wonee boppam mhm. xam nga bilal boobu nga wax noonu hmm? bu ñu nekkoon dans un pays normal boo xam ne amul ñaari justice mhm. moo tax ma ne leen assise de la justice yi ay caaxaan la tout à fait mhm. tey il devait être convoqué mhm. laaj ma lu tax pourquoi il devait il doit être convoqué moom moo ne je mobiliser mes troupes ñu dem Tamba jàkkaarloog Barthélemy Dias tey dañ lay convoqué bu la convoqué dina wàññi lu bëri si yow. ne lu xew foofu ci affrontement yow yaay responsable. Mhm. ndax ñii ubbee fa campagne parce que dañ jàpp kenn si ñoom. Mhm. nga ne ko yow dinga dem contre ko. Mhm. yow mi def contre manifestation lu xew yow la. mais mos nga dégg kenn doo gis kenn ku ko contre. kenn yaa ngi dégg. te loolu mooy provocation. yow nan ngeen ne. Bougane da nga doon provoquer président de la république moo tax ñu tëj la sa jour procès yow ah am benn waa Pastef sax bu fa taxawee ah di manifesté mu ngi tooñ. mu ngi tooñ effectivement. asantuma nga ne danaa préparer samay nit ñu dem foofu ñun tamit. Mhm. que ñoom Barthélémy Dias dem foofu. pavané wu def leen neex. Mhm. may leen cinq jours après itam nga ñëw. logique pour logique rek. Mhm. ngeen ne Bougane dafa waroon taxaw man yéen laa yéen laa waaw Bougane dafa waroon taxaw kon tey yéen a war a woo ne ko yee eh, wala ngeen def benn si responsable def déclaration publique ne Bilal li nga wax noonu Pastef waxu ko loolu beneen bi beneen bi mhm. lu ñu waxal Macky Sall mhm. xam naa ni makisaal Sall ñàkkul fayda mais man bu nekkoon sama mbokk ah, mu tegee fii tànkam nit du ko jëli. Mhm. ndax lan mais parce que li ñu ko wax loolu dafa dafa garaaw. Mhm. gars yi ne ko xam nga menace sax menace la. Mhm. mais lan ko am ñu def déclaration ne ko doo campagne. am ñoo xam ne dañoo def déclaration médiatique joxe moo dor ne fu Macky Sall romb génne leen pancarte ñi dee. ñi dee mais ça c'est de la provocation. ma ne man. man man man man Doudou Coulibaly man bu doon bu doon may Macky Sall mhm. bu ma rombee ku njëkk yëkk pancarte jour boobu ah doo ko defati sax sama mbokk du ko defati mhm. parce que nga am na foo xam ne boo fa yeggee parce que tey dem di fekki sum te loolu dama ko doon wax invité naa fii public mhm. euh, ñaa bu Cogère bu Dakar ma ne ko bu ñu nekkoon dans une république yow dañu la jël. ci mhm. déclaration bi nga def envers Sonko. Mhm. nga ñu baax. Mhm. sur les mêmes principes laa nekk na ku nekk campagne na ku nekk mobiliser na ku nekk sensibiliser fekk leen danser chanter convaincre nit ñi ambiance leen mais bu kenn dem au. au travers de quelqu'un parce que loolu boo ko defee mbirum yabaate la. provocation provocation te provocation. ful la moo koy faj. parce que doo ñëw organiser sa benn affaire organiser sa karawaan ñaari nit ñetti nit deux pële trois tonnes di ñëw taxaw naan dañ koy saytu. loolu boo ko defee kii saytu kii kii saytu kii kii saytu kii problème lay indi bain de sang lay indi si réew mi. Mhm. dégg nga wax beneen bi. injurier le président. Mhm. il paraît que arrêté nañ ko. mais man dégguma ko mais yooyu da nga koy wane. Mhm. def publicité bi pour xam nga pour kan pour keneen. pour keneen parce que waa jooju li mu wax. leçon lay doon pour keneen. waxuma la un ancien président. Mhm. waxuma la un président waxuma la un ancien président. mais nit boo ko waxal rek woo sa sa tànkoortul laal suuf. pourquoi tey xam nga tey gars yi dama dama benn waaye dafa bind mu ne man fa bind mu ne man par deux fois dama tudd yaay Sonko mhm. ma ne ko nag déggoon naa ni nitu Pastef dañoo mun sos yaa ngi dégg mais sos bi maa ngi doog a xam yéen dëgg dëgg dëgg dëgg ADN sos ngeen mhm. ndax man boo ma toogee fii naan ma par naa yaay sunk ma ne la dangay ngay ci ci c'est pas vrai mhm. ndax man rus naa di wax si Sonko ba saaga Sonko. Sonko laa wax de Sonko. may dem ba si waajuram bu jigéen ndax man pour man waajur bu jigéen dafa sacré. Mhm. dégg nga ma ni mhm. xam nga ah man de en tout cas man fàttalikuwuma mun naa wax nag juum mais man fàttalikuwuma fu ma jàllee baat Ousmane Sonko. Mhm. wala Bassirou Diomaye Faye. wala waa Pastef. dégg nga wax damay analyser ay faits ku wax dëgg mën na la dëgg li dëgg la bu dul dëgg mën na la waxoo dëgg te waxoo dëgg nag du saaka dégg nga mhm. man loolu laa jàpp man ndax man dañ ma koy wax ne ma duudu man moo tax yooyu ku ma ko wax damay reetaan romb noppi mhm. dégg nga baax mhm. kon kon ñu bëggee une élection apaisée nañu def lépp dans les règles de l'art ñu nekk au pouvoir lépp dañ ko jaarale yoon bàyyi opposition seen. ba pare ñooñu ñëpp nag bu ñu paree ñu ne tekk toog déglu peuple bi. Mhm. peuple bi su joxee majorité Ousmane Sonko ak Pastef. ñooñu la peuple bi choisir. Mm, mm, mm. gars yi dem toogi wala ñu continuer waat xeex. parce que mhm. politique loolu la nga politique amul renoncement nag. politique amul renoncement de. Mhm. xoolal. Macky Sall neuf élections la gañe pour euh, euh, opposition bi mm-hmm. neuf mm-hmm. dixième ba mu retiré wu ñu gagné gaay mm-hmm. te boobu mooy gañe boobu rek moo neuf élections yëpp da ko gagné mais dixième match ba nga perte ñu la toog nga mooy affaire genre PSG yooyu nga xam ne day jël pays waaw dóor dóor ñëpp. bu ñu demee ba kii kii lay bañ 14 août wala kii. 14 mhm. loolu février. côté yooyu nga xam ni. 14 fala la fa la di commencé dëgg-dëgg. Mhm. fa lay toogee. Mhm. comprendre moom la. donc euh, tey. fi mun am. gars yi jël opposition bi jox ko majorité ñëpp nangu. yaa ngi dégg. Mhm. wala ñu jël affaire yi Pastef kii léegi ku ñu gagné rek nga kon nit xeex ci politique pour convaincre sénégalais ñu leen. mais bien te am nañ ci droit. mais xam na laa mënul nangu. nga yëngu si wateel mhm. naan non Macky Sall waru fi teg tànkam. Mhm. waa at APR waru ñu miti parce que ñoo yàq dëkk bi. waaye eh, eh loolu amul fenn de. biñ jë bi yi majorité bi jàppee ñoo yàq dëkk bi. sanctionné nañ leen. Mhm. yóbbu leen opposition. Mhm. mais jeex na. mais benn affaire kenn du ko jugé ñaari yoon. dëgg la voilà. dëgg la nañ ko. non non waa ma ne benn affaire kenn du ko jugé. ñaari yoon c'est-à-dire le peuple jeex na. Mhm. c'est-à-dire war a too sax di wax ni ay makkee fi defoon. moo tax ñii. même seen communication. ñaa ngi dégg. boo toogee naan sénégalais yi secteur tel am na ay kafaar. direction tel am na ay kafaar. billaay wallaay sur le de la commune parce que les mm-hmm. sénégalais mm-hmm. xam ñoo xam nañ ko ba pare waaw ils ont déjà tourné la page xam nga fu mu nii lan nga war a kii mm-hmm. ñu gis jëf ñu gis parce que tey jii loolu duñ doon nekkoon lu ñu ñoom duñ fi jógee ils ont ils sont partis à des élections ils ont été battus par cinquante quatre pour cent dès le premier tour kon ça veut dire que les sénégalais ont été sensibiliser sur cette question là ba nga xam ni ñoom ñu jàpp ni tout le bilan de nitu Macky Sall. ak Macky Sall ak keneen ak keneen il faut les mettre à côté. Mhm. mais pourquoi ngay ñëwaat six mois après sept mois après kii di wax waxu dof kii di wax kii. loolu xoolal da koy constater. Mhm. voilà et ci avance. Mhm. comprendre nga la dafa mel ni nga ñëw jël benn direction ñoo ne fii yi baaxul micro yi dama ñëw non mais non il faut pas xoolal. ça c' est de la diversion. comprends moo la. mais nag bu fekkee nag da nga toog si benn bureau six mois puusoo. foofu rek ngay jéem a jàpp de naan leen ni ma fekkee affaire yi yàqu dafa ëpp. luy yàqu dañ koy daaneel créaat leneen. loolu mooy dëgg su dee nag am nga moyen wu kii. moo tax waa enseignant seen communiqué bi Abdourahmane Diouf sama xarit la. jëndoon naa glace mais nag euh, il faut ma tàngal ndox mi. Hmm. Hmm. sottiwaat ko ko waaw léegi rek nga fi jëndoon glace. waaw waaw damay tàngal ndox mi sotti ko ko. ah lu mu parce que parce que li mu wax foofu si communiqué bi <laughs> non mais nit ñi ngeen di waxal du ñu ay dof. Hmm. ne ngeen crédit yi jeex na au mois d'août. waa mbaa kër Macky Sall yi ñoo jeexal crédit yi. au mois d'août waaye ñu ngi koy ñu ngi ut ay voies et moyens. te dinañ ko régler. au compte au gout à goutte dinañ ko régler waaw fa ngeen koy jële budget budget la de. Mhm. budget bu jeex août des na septembre octobre novembre décembre quatre mois. Mhm. waaw jeex na léegi yéen fan ngeen koy utee bu fekkee. loolu loi rectificative des finances non. moo ko war a def dëgg kan moo koy def loi rectificative de finance assemblée nationale du assemblée nationale. kon mhm. ça veut dire que yéen fu mu ne nii vous êtes en train. de faire des vidéos ak di jël ay décisions yoo xam ne kenn kiiwu leen yëgu ko kenn kenn kenn autorisé wu leen mhm. mais ça va se répercuter parce que tey <laughs> mun nañ la jox benn avance mhm. sur le prochain budget mhm. mais ça va se moo tax booy kii xam nga ku masul yore mairie rek yaay ñëw fekk état si benn si benn si benn posture bi ngay ne yàq nañ alal maire maire buy doog a falu da ngay fekk ay bor ci mairie yi mhm. ngay ñafe di ñafe di ñafe di ñafe di ñëfee ba ba fay bor yi. Mhm. yow da nga commencé léegi di contracter ay bor. comprendre mu la. Mhm. parce que mairie yi chaque fois même bic boo ko jëndee bic. waa ji da lay jox bic ba pare après du topp facture yaa ngi dégg. parce que recette yi ak paiement bi. du ànd mukk. loolu tam ak état noonu la boo ñëwee dangay ngay fekk une situation boo xam ne bu difficile la. Mhm. yow tamit nga def nii def nii def nii. ba redressé ko. Mhm. si diggante bi nag si diggante bi ci t'endette toi aussi te boo endetté woo. Mhm. mais keneen bu ñëwee bu waaye yëfu dof rek lay def wala populisme day ñëw ne fay naa fi quinze mille milliards de dettes. mais fekk nga fi quinze mille milliards de dettes mais fekk nga fi TER. fekk fi BRT dugg Dakar Arena. les réalisation waaw mais loolu loolu loolu da nga fu ñu ko jëlee si budget wala ñii da daan ñu déglu Macky Sall mu leen wax mhm. Macky Sall nee na état mooy riche bu pauvre. Mhm. dégluwoo ma de. Mhm. bu baax non dégluwoo. Macky Sall xam nga man nag <laughs> gars yi man dama man su ma contre nit laa lay gën a déglu. non su ma su ma contre nit. ci laa lay gën a déglu parce que il faut muy ut ay argument à te dama ko seetaan benn 31 décembre mu ne. l' état est mais il est Hmm? Mhm. man mun naa am fii ak su ma xoolee sama revenu yëpp am naa lu ma jëndee tele un million. Mhm. mais si ci douze mois yi. douze mois yi mënumaa am benn jour rek un million bu ma dem jëndee télé bi. Mhm. mais soo ma joxee tele ne ma fay ma cent vingt mille par mois mun naa ko chaque mm-hmm. mois mun naa ko fay. progressivement. waaw progressivement. Mm-hmm. xam nga kon mooy man am naa capacité financière. Mm-hmm. mais aw ma assez de ressources. nee na loolu mooy indi dette. mais état day ne bëgg naa def si lii trois mille milliards. am naa sept mille milliards. mais mënuma jël trois mille milliards mobiliser ko léegi léegi léegi def ko si donc damay dem emprunter. su ma emprunter après may fay. cent franc cent franc cent franc léegi trois mille milliards yi mhm. ma def si des travaux d'envergure mhm. mais loolu mooy andi det yow nga bëggul yow nga ñëw dëkk révolutionné ko en douze ans affaire yu extraordinaire mhm. après nga ñëw taxaw naan noo dette bi dafa bëri mais dette bi dafa bëri c'est parce que Abdou Diouf ne s'endettait pas moo tax dëkk bi tardé woon ñu am benn autoroute boo xam ne on a même pas cinquante kilomètres de voie la woon. aujourd'hui on est à combien de voies à de kilomètres de route léegi autoroute bi dugg Kaolack c'est ça une vision loolu nag Abdoulaye Wade da ko commencé. Macky Sall yeggali ko. il faut que su Sonko nu diis moom bu paree. autoroute bu yeggee Kaolack fan la koy yóbbu. la mhm. loolu nag lañ ko loolu na DPG loolu rek la. autoroute bi moom allah kulli àll day yegg kawla waaye bu fa maanaam Kaolack Kaolack bi nga doon daw trois heures de temps. Mhm. heure bu paree une heure. une heure trente nga koy daw mooy comme Ila Touba. Mhm. waaye yow léegi comme que foofu nga koy fekk ah yow fooy yóbbu autoroute bi mhm. da koy yóbbu Kidira da koy yóbbu frontière Mali danga koy yóbbu Kédougou wala da nga loo ciy def. Mhm. loolu mooy laaj. moo waral ñu naan état continuité la exactement. am na solo alors. si euh, moom la Doudou wax dañuy rek ci li nga xam ne.